ayca jërë ngeen jëf bàkk ba jib na générique bi départ na jàngat làmb tàmbali na bàyyi jili père Birahim mbokk yi ñu leen di nuyuwaat bu baax a baax a baax fu waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew di leen jaajëfal bu baax di leen wax ni namoon ngeen ñu lool waaye namm gu ngeen ñu namm rek namm nañ leen namm bu ko raw ñuy ñaan jàmm ci réew mi ak mboolem réew jullit di ko ñaanal euh, père Birahim mi nga xamante ni suma papa la suma xarit la suma lépp la ma amaat kontaan ak mbégte bokkaat moom plateau bi Père maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar. waaw ah, jërëjëf auzu billaahi mina shaytaani hmm. rabbi israh li sadri wa yassir li amri hmm. wa rahmatullah. maa ngi nuyu bokki internet yi nga xam ne ñu ngi seetaan so wasaare di ko safoo. Hmm. E, di ñu bëggee maa ko jili ak waa waa bureau bi maa ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen nuyu. di ñaan sama kàddu yàlla na fekk leen ci jàmm. Eh, di ñaan ci yàlla yàlla na yàlla def jàmm ci Sénégal. Hmm. ak réewu jullit yeeg ñëpp. mbas mi nga xam ne moo nekk fii la jël ñëpp la jël ñëpp te te freiné activité ñëpp. Hmm. ah yàlla na yàlla teggi ko fi te di fi xéwal yu yaatu bu ñëpp xaj. ba ku ci nekk la nga yëngu. Hmm. yàlla defal la ci ndam defal la sutura. Eh, di kontaan trop toujours toog ak yow yow moom. sama doom nga sama lépp nga yow moom. tubaarkalla neex ngaa liggéeyal. neex ngaa parce wax dëgg yàlla. du fleur yu ma lay sànni du ma lay jëy du ma la hmm. parce que sama doom nga te liggéey bu baaxee ñun yëpp la baaxal dëgg la jaay bu yàqoo ñun yëpp la yàqal waaye yaa ngi ci hmm. hmm. yëpp muy kàggu muy Bachir muy Adama muy Ousseyn yëpp daal yàlla na yàlla def jàmm ci kër gi rek waaw li ñuy wax it yàlla yàlla defal sutura ci ba ñu bañ a am ba accident làmmiñ mm-hmm. parce que accident daal làmmiñ moom parce euh, que mm-hmm. moom lu yàqu moo ko yàq làmmiñ mm-hmm. mooy defar waaye mooy yàq dëgg la waaw kon nag yàlla yàlla musal daal ñuy wax ba lu ñu fi wax rek muy loo xam ne lu dëggu la lu ñu gëm la jërëjëf jërëjëf Père Birahim tey ñu ñëw ci saison wu làmb da doon waaj ubbi waaye bi ñuy waaj dañ doon wax naan saison bi bu ubbee làmb yu ci bari wii kuloo lañ koy def Mm. yàlla suñu borom mujjee nañoo suturaal ba jàngoro bi muy gën di reculer yàlla mu ngi def jàmm xel yee ngi dal ba ñu mën a ubbi saison bi waaye bi ñu ko ubbee làmb simple moo ubbi. Mm. bi mu ubbee nag defatu huis clos bi ñu doon wax mujjee wuñ ko def huis clos. Mm. mais respecté nañ mesure barrière yi. ba làmb ji ubbi na saison bi neex na mag fa tabaarakalla ginnaaw dimanche bee weeso ak ñett dimanche yi nga xamante ne jot naa jàll samedi bi euh, Assane Ndiaye wala Fallou njaay Ndiaye production moo ñu woon fële ci arène nationale teg quatre million jag sa production teg na terrain gaal gi deux millions cinq cent euh, compétition yi nekk na ay compétition yoo xamante ne yu neex la euh, nan nga gisee compétition yi seetaan nga ko waaw am na yu ma ci seetaan. parce que hmm. bon Wassare xam nga booy yëngu ci dara. Hmm. foog nga di ko suivre. dëgg la ma taal télé bi xool ñu jàppal ma Wassare maag sama doom yi ñu toog seetaan may seetaan bëre yi. Hmm. na. tuwaar yi na xale yi namoon nañu parce que gis nga bëre day mbir moo xam ne boo ci tolloo. soo ko deful dafa am lu manqué. lool parce que bëre maanaam da nga koy bëgg ci sa xol. ba ni nga koy foyee. soo ñu demee ba foyeetuloo ko rek dafa dafay freiné sa yaram dalay lay mm-hmm. ko quoi mm-hmm. yàlla def buñ ko ubbee rek booy yëpp ñëw nañ gis naa ñu yëngu ci arène bi mm-hmm. ñoo xam ne xale yu baax ñoom kaw gourdin boobu ak ñoom booy boobu ñu wax naan euh, tas yaakaar xaw ma xale yi ma gis ci ay boy yu baax ah yoo xam ne tey jii bu ñu góorgóorloo ci làmb nii di ko jox ak xam euh, dinañ ci man a sori parce que euh, Bassir kii nu mu tudd Abdou Mbapat mooy école bi Mm-hmm. mooy primaire bi. Mm-hmm. xale yi dañu war a bappati. Mm-hmm. waaye bëri benn ba arène daal di toog ñaar daan ci daal di toog sa kër jaaw nangoo toog bappat. sa xam-xam day tëju. sa xam-xam day tëju. moo tax da ngay bëri bappat dem ci arène bi parce que bokkal yu ci bëri gis naa leen gis naa ñu bëri waaye dese nañu lu bëri. dese nañu lu bëree bëree bëri te bu ñu ko teel lu dindi fi mu ne nii ci teel nii bis bu ñu màggee dañuy dem ba ca kaw nag ñu di leen fa kasal ci lu ndaw. loolu mënoon naa ñàkk. lu xam ne boo ko teelee jàng am ndaanaan bu ne ci sa wet wan la lii lii boo koy bëree daan nga fii kat waaye nga daane waaye daanu nga fii kat waaye erreur nga daanoo loolu ki la koy wax ñooñu nag mooy tax ak mbappat yi moom nag ci nga mën a rectifié hmm. mais ni mu débuté nii daal mais tubaarkàlla tubaarkàlla combat yi ma ci seetaan yëpp neex naa hmm. ne ma seetaan naa ñett wala ñeenti combat yoo xam ne yi seetaan naa ba final yi hmm. waaw noo noo gisee combat yi ban combat moo la ci gën a neex boo xamante ni gis nga ni technique feeñ na fii bëre feeñ na fa ba bi neex na. waaw am na ci yu bari yoo xam ne boo xoolee da naan euh, kii li mu mën rek moom la ñu imposé daan ci. Mm-hmm. xam nga nit am fan bëri mënin la da ngay am fenn fort boo xam ne mooy sa fort. Mm. da ngay ñëw rek imposé ko mbër bi daan ko. Mm-hmm. waaye ñi ngi koy imposé nag ñoo war a xam ne kii lii la ma imposé waaye dinaa fexe ba du ma ko nangu. Mm-hmm. te gis naa ko mel ni franc. Euh, dëbb sol laali boobu mu leen di fa imposé dañuy imposé leen ci daan. Mhm. te loolu ku mu ci ëpp doole ñaar yoon war la cee mën a daan. Mhm. wala boog bu la ci daan dégg nga warul yomb. Mhm. waaw parce que dëbb sol li am na clé boo xam ne boo ko tëjee dégg nga du la ca daan leneen lay daane waaye du la daan ci loolu. waaw dëbb càpp ci suuf kooku mani na bu fort parce que am na kàttan bu la dëbbee sol li nga jóg mu wàcc jàpp. waaye ku bu bu la dëbbee sol boo crochet mbagg bi éliminer beneen loxo bee bëri ba du dem. waaw te gis naa mu daan ci ay ponkal yoo xam ne yi damaa xam ne ñii jànguñu franc. Mm-hmm. waaye buñ ko jàngoon lii waru leen a daan. Mm-hmm. waaw loolu gis naa ko ci bari na te it mu ngi ciy def di daana parce que nit boo bëggee bëreeg moom bëre bi tëju bëre bi doo dem ah, da fool fa mu foore. Mm-hmm. nga bañ fa jaar fi mu feebale nga di fa jaar. père ci franc moomu laay ñëw parce que compétition bi dafa am lu ma ci seetlu. li ma ci seetlu mooy franc dafa bëreeg. Serigne Ndiaye numéro 2. Hmm. daan ko. Hmm. ci sol boobu dëbb sol boobu ngay wax boo xoolee Serigne Ndiaye moo ko ëpp volume. Hmm. mais Franc daf ko dëbb sol sànni ko daan ko Serigne Ndiaye Franc bëri na ak Boy Faye. mais bu bëree booy fay Franc moo ëpp volume Boy Faye. Ah. mais bu ko solee du ko mën a dëbb sol boobu muy def. day am problème pour def ko booy fay mënu koo def. Ah. Euh, mu mel ni kon euh, euh, taw taw Serigne Ndiaye bu jàppee booy fay da koy daan. ci ñoom seen diggante ñoom ñett ñooñu ku ci nekk dafa mel ni dafa am loo lu sa moroom am loo amul am lu sa morom am loo amul Franc lan moo tax mu sonal Serigne Ndiaye saa yuñ dajee ñoom ñaar mu daan ko bëri na ñetti yoon mu daan ko parce que ñetti yoon sax mu daan ko ñetti yoon parce que bu ñu amoon télé tey ji wala ñu am tapis boo xam ne dama war ni def hmm. parce que bi ñu la dëbbee sol naa la pied droit la xam nga Serigne Ndiaye lu muy teg hmm. pied gauche lay teg pied droit hmm. lay teg Mm. moom it pied droit ñaar tànk yi day jàkkaarloo. Mm. mais dina fexe ba pied gauche bi ñëw mu dëbb ko sol añ ko su ko ëñee da koy bàyyi loxo ba ba loxo bi di ëñi waroo bàyyi mu wàcc da koy crochet. Mm-hmm. bu ñu la dëbbee sol nii da ngay crochet mbagg mi la sol. bul xaal bul bàyyi xel ci loxo boobu loxo bi libre nga war a bàyyi xel. Mm. loolu su ko doon def pour Serigne Ndiaye pour kii pour Franc daan ko ci dana jafe. waaw. Franc daan jafe ko mais nag toujours bunt boobu benn te boo xoolee ñetti combat yi mu koy daan yëpp benn fin bi la koy daanee. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw benn feem bu ñu la ci daanee daana ci daanee ci sa xam-xam yokkuwul. Mm-hmm. dañuy waxante dëgg waaye tam. Mm-hmm. xam-xam. léegi benn feem man ñu ngi daan ma ci daan la ci daan ci kële. dégg kon kay yow jàngoo waa ji. wala boog ñu ànd ak yow nañ la wan ne la géet ki waa ji kat daan na la ci lii waaye lii bu ko dangooti. léegi bu defee nii nii ngay def wan ko yoon woo xam ëllëg si bu ñu fa jaaree doo dem. waaw parce que tamit booy fay moomu dégg nga bërikat la. waaye moom xam na li nga xamee ne lii moom la franc di bëri. Mhm. xam na li muy bëri moo tax da koy moytu moo tax pour franc daan ko da koy jafe. Mhm. kii nag dafa xam li franc yi bëri ba pare mënu koo moytu. kii da koo xam mun ko moytu. daan ko moytu kii xam ko mënu koo moytu. mënu koo moytu. loolu rek jëf Ndiaye loolu la jërëjëf Ndiaye. ñu gisaat beneen xale ku mel ni général Malika. Euh, gis nga compétition ba keroog ba mu ba mu feeñee. Mm-hmm. champion yi fa nekkoon ñëpp moom moo leen daanoon. keroog jël tournoi bi. Mm-hmm. waaye ba mu koy jël ëbbali euh, ci ëbbali la la daan. Euh, jël bokk na ci ëbbali bokk na ci mbër yi mu daan. Mm-hmm. waaye gisuñu woon jour boobu Serigne Ndiaye numéro 2. gisuwuñu woon franc. moom général Malika mu jël ko bii passé ñu gis Obali jël bu rëy bi nga xamante ni daan na ko Franc ci biir bëre ñu weccante ñoom ñaar ba mu daan ko jël bu rëy rëy rëy rëy waaw waaw mbër noonu la mbër gis nga ki ngay bëree di daan di neexale hmm. léeg-léeg nag nag euh, favori bi léeg-léeg moom ñoom ñaar bu ñu tegoon ñoom ñaar ngay teg sa xaalis koy teg hmm. da teg ci Franc am nga hmm. waaw mais nag loolu nag loolu mbett day am toujours loolu nag moo tax gis nga combat kii Franc. Hmm. moo ko defar ci tournoi yi di ñëw. yii di ñëw moo koy defar moo ko defar ci tournoi bi gis nga tournoi bi ci topp est-ce que gis nga ko daan. Hmm. biñ ko daanee foofu. bi ko moom bi ko ëbbalee xam nga moom bi ko ëbbalee daanee ba léegi génnaatagul dafa. dafa dafa dem parce que dafa dafa dafa bëri arène nationale jël compétition bi. waaw bi ci topp mu ñëwaat terrain gaal gi ëbbali daan ko. voilà léegi génnaatagul. saa ñëwagul ci ci ci compétition bi. kan ci moom moom Franc. moom déet ñëw na bi bëri bi paase. boobu moom la ko ëbbali daan. ah d' waaw moom kon ba bëri waaw d' accord saa yi génnagul. waaw génnagul day defarwaat. Hmm. parce que xam nga booy itam. Euh, dañoo gëm affaire galaaj. Hmm. gëm affaire téere. Hmm. ngemboo ngembu dem ñu bëri ñu daan la. mais li gën a am solo. doo leen nekk yemale gàllaa ji te jàng waa moo baax benn yokk sa condition physique yokk sa kàttan mm-hmm. bu fekkee condition physique la waa ji daane yow xam nga xam nga ne tey ji condition la ma daan bu fekkee damaa juum nag parce que mën nga am condition am doole am gàllaaj ba pare juum mm-hmm. loolu mën naa nekk dëgg la am condition am doole ba pare am physique ba pare juum mm-hmm. waaye juum boobu nag da nga koy rectifier nag xool tam ne man mii day bu fekkee condition bi da koy defaraat su fekkee nag sa galaaj xëy na moo desoon ah te gëm nga ko nga dem wutiwaat. Mhm. defaruwaat. dégg nga bu dee sa sa doole moo des it nga yokkaat say entraînement. Mhm. bu gën a dëgëraat léegi nag soo ñëwee toog nag ñu daal xam ne nag yow mii daanaan ñëwaat na nag. Mhm. parce que mbër yàgg naa daan defaru ñëwaat. bu defaruwaatee toj làmb ji. kooku nag mbër kaami la ko doon def. waaye boobaa nag da am daanaan sa wet ku lay rectifier ba pare am koo xam ne kii préparation physique bu baax. boo xam ne boo ñëwee lépp nga indi. di nga indi doole di nga indi kàttan di nga indi fit di nga indi jom. Mhm. yooyu boobu fu mu ànd ci borom doole daal na xare daal. Mhm. Euh, nga gis Obeuly bi mu finaaloo moog gis nga lam ca def ba ñàkk combat bi est-ce que nekkul ñu bari li ñu constaté mooy Obeuly dafa daan Franc rek doyal ci compétition bi moo tax mu perte finale bi. c'est waaw non non c'est que nag déet mën naa doy doyal ci combat fort mais combat boo daanee ponkal. Mhm. ak la nga ca daj ba sonn. ñu tiiriwaat nga daj ak ah loolu tegale ñaari pro champion nag yombul de. Hmm. te tegale ñaari champion. ah déet condition physique bi ak doole ji ak condition bi ak coono bi. Hmm. parce que gis naa ko ci benn tournoi boo xam ne bi kii ki daan ah, kii nu mu tëdd Libidor. Hmm. combat bi ci topp gis nga ni ko daane. dafa sonn. dafa sonn. Hmm. mais ki ko daan waru woon a yombe noonu. Hmm. waaw mais dafa sonn xam nga jóge ci benn combat bu mel ni que Franc nga daan ko. Hmm. dégg jóge fa dajewaat keneen ku ñaari champion nga dajal leen. nga tegal leen ci làmb yàmb yombul de. yombul dëgg la yombul lu jafe la. lu jafe la mbër ne koy def nag waaye loolu yombul. na xam ne ki ko daan mën na koo daan. waaw parce que combat bi mu jóge victoire bu rëy rëy daan naa Franc ndam la de. Franc ni ma gisee nii. ku ci daan daan nga ma ndam lu rëy. waaye kee tamit dégg nga xam na ne. ki ko ki ko ñàkkaloo tamit daanaan la. dëgg la waaw c'est que ñu ay daanaan bu ñu dajee foog moom ay fakasal. Mm-hmm. waaw parce que te ni ñuy tiiree combat yi da ngay pare rek daal di tiire daan ñu daal di daal joxaat kii di tiire waat da jox keneen. Mm-hmm. bu fekkee da ngaa jóge ci coup dix dalaat ci coup dix ah temps de récupération doo ko am. Mm-hmm. xanaa sa condition physique doy lool. waaw moom condition physique bu doy doy loolu rek moo la ci mën a génne euh, may jaajëfal bu baax père euh, Euh, ci première partie bi la woon. Ah. Euh, ñu koy indi rek parce que xam naa ni amateuru làmb yi. namoon nañ per namoon nañ làmb mais dinañ leen ñëw ci télé bi indil leen combat bu mag père décortiquer combat bi ñu gën ci waxtaan. per dafa am loo xamante ni daf ñu jaaxal. mooy dañ doon jàmbat ci làmb. loo xamante ni euh, mooy suñu papa Gaston. Mm-hmm. ñu ko doon jàmbat ñu ci bari chaque jour ñu ne père Gaston na ñëwaat ci làmb. ñëwaatam ci làmb am na njariñ na ñëwaat ci làmb na ñëwaat ci làmb ba yàlla dogal Père Gaston moomu ñëwaat ci làmb mm-hmm. waaye ñëwin bi dafa mel ni dafa am coppeeku bu ci am coppeeku bi ci am mooy Père Gaston ñëw na ci làmb organiser combat bu mag dox ci diggante Lac de Guiers ak euh, Eumeu Sène ak Eumeu Sène mm-hmm. mais dafa am luñ ci gis mooy presse bi woo nañ leen bi combat bi taxawee pour mhm. ñëpp ñëw ànd mhm. liggéey jël face to face Eumeu seen ak Lac de mais dem nañ ba jimmi jamono ñu jékki-jékki na presse bi kenn du dugg si ci làmb ñëw filmer làmb ji nga wala nga wane làmb ji euh, promoteur taxawaay boobu la war a taxaw ci presse waaw c'est que xam nga presse hmm. euh, ak ak organisateur hmm. mënu ñoo tàggoo hmm. parce que presse bi bu amul lu publicité liggéeyam du dox dëgg la waaye promoteur bi tam bu ñu koy siiwalul ba bëree siiwalul marchandise am du daaw mm-hmm. kon ñoom ñaar la dañu war a ànd ba parce que kenn mu rotta ne mën a bàyyi boroom mm-hmm. waaw parce que da ngay xool xam ne kii li muy tukki da ciy wut dara mm-hmm. waaw kee tam li muy def ci wut dara mais fi ngay wut dañu war a kenn ku nekk nag am loo yéwéne sa morom. waaye bu fekkee ne kii organiser laa bay dem na ba xool ne yéen li ngeen di wut kat mën naa ko wut dem wut samay caméra wut samay filmé kat yi bopp. Hmm. dégg wut samay maanaam samay rajo. kii hmm. comme suñu kii bi ay site internet. Hmm. wut defe ko noonu. léegi sama seen tojuñu bopp la parce que ñoom li ñuy dépense ci làmb ji bari. li ñu fay mbëri day bari li ñuy dépense ci làmb ji bari dégg nga ñu wutaat beneen boo xam ne bii dañ leen di jéem a wut jéem a euh, xañ pour yor defal ko seen bopp. defal ko seen bopp nag mooy jafe nag. defal ko seen bopp. mën nañoo am ñeneen waaye bu gënoon a dégg nga ñu am loo xam ne li sax dina ah wasaare kat mën naa ñëw waaye nangam lay joxe. Mm-hmm. wala kii kat nangam lay joxe. Mm-hmm. wala nangam lay joxe. Mm-hmm. bu boobaa ñooñu nga dugal leen ñoom it comme seen njëriñ a ngi ci ñu am lu ñu dugal yéen a ngi am lu ñu dugal. su ko defee li wolof di wax bu sulu yooyu bu gër dem ak leen. boo ñëwee rek filmé dem yóbbu filmé dem yóbbu. wut say bi am sa sa taranga. moom mi tëgg làmb ji amu ci dara. loolu su ko defee tamit bu yàggee. dégg nga day bàyyi làmb ji. waaw parce que làmb ji muy tëgg nii tamit saraxewu ko da ci wut dara. waaw mais li ñu jaaxal mooy euh, loolu nag père li li Sénégalais yi ñëpp njortoon di ko di ko di ko mu jaaxal leen mooy dañ doo wax ni làmb ji huis clos lañ koy def. la de guerre seen ñu dem ba mu mujj gi jëmi jamono wii clos boobu amul. pour man kiy tëgg làmb di def làmb wii clos xanaa seen tootu ci euh, nu mu ciy gagné mais am na ay partenaires yoo xamante ni mun nañ ko accompagner ba mun kee def nu ko bëggee. waaw accompagnement bi moom. ci sama yaakaaru bopp laa mun la ñàkk parce que nit ki bu fekkee ne dafa jël ay millions. daf ko ci làmb da cee bëgg dara. Hmm. waaye jëlul million yi mu def ci poosam rek pour sànni pour fay leen ngeen dem toog mu faxasu dem toog déedéet da ciy wut dara. Hmm. la mu ciy wut bu ko ci xoolee am na xam naa am na fu jaar ba xam ne bi xam na ne su ko defee dina ci am dara. Hmm. waaw looloo ko ciy dugal mais bu fekkee ne xool na ne woon du ci am dara yorul ay million yu muy sànni. maa la wax lii. yorul machine buy defar xaalis boo xam dee defar rek liggéey sànni déedéet. Hmm. waaw da ci liggéey pour am ci dara hmm. am dara boo mu ci am dara nag moo ko moo koy moo moo tax muy jafeel mbir mi hmm. moo tax muy jéem a jafeel mbir mi man nag père li ma ci gis mooy dafa mel ni ñàkk respecte respecté presse bi euh, daf ci bokk parce que gis naa ni saa su ne bu promoteur tëggee làmb yu mel ni presse bi dañ koy jànkonteel bu ñuy dugg ci stade bi dañuy am problème dugg bu ñuy génn dañuy am problème du génn boo duggee ci stade bi ni nga bëgg a defee sa liggéey sax doo ko defee sa liggéey dañaan la yemal fii wutal la limite bul dem fii bul jaar foofu loolu taxawaay boobu promoteur ak presse lan moo tax saa su ne rek boo organiser rek faw nga mun a wane ni man maa organiser man maa leen ëpp doole maa leen féete kaw te faw ma néewal leen doole ba ngeen xam ko waa sama gis-gis ci foofu jiri xam nga mooy lan hmm. bi ni ñu war a àndee noonu dëgg la Ndiaye waaye bu fekkoon nañu ànd nekk benn di xàccandoo di tegandoo. Hmm. kon tey ñëpp leen di soxla parce que ku ci bëgg sa marchandise siiw. Hmm. dem ci monde bi yëpp yëg fenn ñëpp yëg leen dugg ci télé sa téléphone seet yëpp. Hmm. presse bi rek ko yor. dëgg waaw léegi nag ñooñu bu fekkee ne léegi danga nga leen suufeel wala da nga leen a teg tegoo leen fenn. ñoom ñoo war a xam seen bopp. ñoom ñoo war a xam fan seen taxawaayu bopp. waaye bu ko ci xamul sa bopp tamit waaw ah, ku bindoo ni ndënd ñu tëggal ni ndënd. tëggal ñaari boor dëgg la. waaw ku tëggal ni ku bindoo ni tama ñu tëggal ni tama rek. waaw ah, loolu waaye boo amee suñu foofu ngeen àndoon nekk benn. Hmm. yéen ñëpp kenn kenn ku xam ne wërsëgam am affaire bi. Hmm. ngeen ànd di xàccandoo tegandoo. kon tamit promoteur bi tamit dina am lu ñu def ak yéen parce que promoteur bi tamit dafa am fenn foo xam ne droit am la. Hmm. mooy day tëgg dafa bëgg dara moom waaw bu ñëwee comme ni ma la wax sànq rek nga filmé dem yóbbu duñ ci am dara. ñoom dañuy dem ba loolu dañ koy jéem bañ. waaw mu mel ni nga yor télévision boo xam da ngay ñëw rek daal di ci filmer filmer filmer dem teg sa kii am say vie dem naa nga am say am say euh, ñëpp maanaam sa télé dox dégg te bi tëgg combat amu ci dara. Hmm. léegi bu yàggee day hmm. léegi Père yow boo doon tëgg làmb. Hmm. nga bëgg site bi ñëw jox la. Euh, koom-koom boo téye euh, d'accord site yi mën nañu d'accord jox la mais promotion combat bi xanaa bu la ko site yi di defal danga leen di fay. ma promotion bu ma ko defee man du ma def sa promotion te fayoo ma. Mhm. loolu mooy yoon. Mhm. liggéey free moo amul boo demee ci américain yi wala dara yooyu liggéey free moo amul. Mhm. waaw mool sax bu ñu la ko déplacé da nga leen di fay. nit ki ngay liggéeyal di def dara da nga ko war a jox dara. waaye ñoo nag yéen tamit daal filmer rek dem publicité publicité publicité rek bëgg see kii dox te te ba joxuñu la dara ah yéen ko nangu. mais bu ngeen ko nangoo kay dëgg dëgg dëgg. mooy li ma la wax rek moom laay répété waat. Hmm. mooy te bi doon tabax ñu tëggal tabax. Hmm. yéen a profité lépp ku ci nekk yàkkamti ngaa dem ba filmer sa pour pour bañ ñu fayal ak ñàkk a fayal yëpp dangay ngay da ngay dem. Hmm. buñ bu woon buñ ne woon dañuy woo open press tey jii. yéen ñëpp kenn ku nekk toog sa kër kuy kuy wañ kuy wañal kuy wane. kenn ah, waaw mais fi ne kenn kenn du fa xaj. buñ ne tey jii diwa ngay dem open press am tey kenn du fa xaj. internet yëppay dem. ñëppay dem. Mhm. jëkkante nag micro yu mel ni cent et quelque naan mhm. fi mu teg mhm. waaw loo ci man dara waaw ah, léegi promoteur bi tam noonu lay def rek yow kay li mu bëggoon a jafe li mu bëggoon li wa yomboon ci li jafe ci moom nga ñëw yombal ko ko ka lu muy wax dara ah dara ah ku bëggoon a ma bëggoon a dem kaaba nga ma maaka kaaba gi ñëw tegu sawet foo jëmati ah, fenn voilà loolu rek la jërëjëf Ndiaye loolu rek la wax ji leer na trop ah, euh, may xamal suñu mbokk internet yi rek nii dafa am loo xamante ni saa su dañ koy partager ak yéen dañuy bëgg saa su ne rek seen mbégte doon suñu bànneex bu ñuy sañoon combat bale am arène nationale dox ci diggante la de ak Eumeu Sène ngeen seetaan ko ci wasaare làmb waaye nag ab gor doo xaar ba ñuy seppi sa loxo ci ndab li parce que dégg ngeen li nga xamante ne suñu papa Gaston wax na ko moom moo organiser bisam moo ci def xaalisam moom moo tëgg làmbam moo ne benn site internet du ñëw waaye am na leneen lu mu ci teg mooy ku dajeeg mbër ci ci tali bi wala ci mbedd mi loolu boo ko jëlee yow yaa xam wax la nag boo xamante ni nit ku nekk ful la yow yaa koy amal sa bopp ñun ñi nga xamante ni ñoo bokk internet bi euh, lenn nag xam naa ne ñaar benn bii dinaa ko nangu ci suma àdduna wala ñaari baat mooy bàyyi jili man la naam nga ne ma maa la mag maa la ëpp xaalis loolu nangu naa ko mais fulla kenn ëpp ma ko ci àdduna parce que damay jàpp ni rek képp koo xamante ni yaa ngi koy roy wala yaa ngi koy topp wala yaa ngi koy bëgg rek daa am yu la neex ci ñoom mooy fulla ak fayda ak jom ak dëggu bi nga xamante ni Père Birahim saa yu mooy toogee di waxtaan ci ay waxam loolu dafay bokk ci li ma neex ci moom may wax rek mbokk internet yi ni wasaare làmb duñ fa ñëw tey duñ fa ñëw suba ndax vraiment ay borom jom ñoo fi nekk ay borom fit ñoo fi nekk ay borom fulla ñoo fi nekk làmb tolloon na ci ay jafe-jafe yoo xamante ni suñu papa papa Abdou Fall rek lañ doon gis mu akan mu mu ne wanee ni làmb Aziz Ndiaye dem na suñu papa Gaston dem na waaye dinaa fexe ba tëgg mbëri ba képp koo xamante ni dama doon jàpp ni Gaston ak Aziz Ndiaye mënoon nañoo yóbbu làmb seen manquement boobu ci làmb du feeñ tey loolu gis nañ ko ba suñu papa Gaston bi mu ñëwaatee xar kanam googu la wane ci press bi xëy na nag moom mooy suñu baay suñu kilifa la moom moo war a taxawee taxawaay boobu mais xamante ni yaa ngi liggéey ci presse képp koo xamante ni yaa ngi taxawaay ci presse fulla googu war nga ko mën a amal sa bopp war ngaa mën a xaar ñu gën leen a jox cër bi nga xamante ne am ngeen ko gëdd bi nga xamante ne am ngeen ko ci làmb wolof na def na lu duuf ci nag li xajandoowul ci cin bi li ñu buggoon wax yëpp mënuñu ko wax waaye am na lu ñuy dégg ni am nañ ñoo xamante ni financé nañ làmb ji def nañ ci seen xaalis wala dugal nañ ci xaalis bu bëree bëri ñooñu nag ñu ngi ñaan bu fekkee état la nañu génn leeral ko parce que bëgg nañoo xam xaalis bi ñuy dégg jugee ci réew mi dellu ci promoteurs yi ci yan promoteur la dem ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax Père Birahim ma lay jëfal bu baax a baax. waaw jërëjëf li nga wax de leer na nañ. Hmm. Euh, médium kala mag rek koy fajal boppam. Hmm. waaw parce que mooy li ma la wax rek soo fekkee ne nit ki moom boole na la ci biram hmm. ah nga ñëw bokk bu fekkee ne léegi boole ci la ci moom moo ne mooy seereel boppam. parce moo dépensé xaalisam moo génne àllam. ah nga toog si tànn ko rek. waaw. Hmm. Ah. Hmm. seet seet xëy na li lii tamit du ñëpp koy def. Hmm. am na ñoo xam ne xëy na buñ duggee ko am dinañ yaatal ñëpp. mais jot na nag. yéen inter yéen site internet yi ngeen toog nag di waxtaan. dëgg la. waaw yéen seen internet yëpp benn groupe. formé benn association sax bu dëgër. boo xam ne bii nag dañuy toog nag waxtaan seet nag léegi ni ngeen di doxale moo xam ne loo xam ne yéen ñëpp. tey jii da ngeen war a ànd nekk ku ñëw rek war cee bokk. am nañ benn groupe sax boo xamante ne association des de reporters la la tudd. Hmm. mais xale yu bare bari ñu nga fa. waaw bokk ci. Hmm. nekk su ko defee nag lu ngeen def yëgoo ko. kenn ba a trahir nag. Hmm. kenn koo xam ne kii ne waaw fii dem ba fa yolle ku dugg ci leen. loolu tamit day yàq mbooloo jërëjëf Ndiaye. loolu day yàq naa nga bàyyi def ba pare dellu ci ginnaaw rocciku. yoolu moom bu dem. waaw. voilà kon nag di am solo ba am solo mooy àndandoo rek. waaw su ngeen ko defee làmb ji parce que làmb ginnaaw gee yaatu. làmb ñëpp ci am. jaaykatu gerte ba dana ci jaay hmm. jaaykatu sandwich ba dana jaay hmm. dégg nga li ma la jaaykatu ndox ma dana jaay hmm. jaaykatu kafe yi gis nga ko ak sedd bi café gi dara du tag sedd bi café gi da ngay naan lépp ma ne surtout làmb moom mbir la moo xam ne bu xasee am lu bare bare bare ci dëkk bi day commencé ndox waaw léegi mbir yi am tournée dégg nga ñoom Modou Lo ñoom Balla Gaye ñoom Eumeu Sène ñoom Lac de Guiers dégg nga defar ay t-shirt yoo xam ne seen kii ci ne seen fans yi di ko jënd. Hmm. ah ku nekk am sa lugu bopp. Hmm. Ah, ñoom booy kayre bi kii booy jën. Hmm. ak ñoom xam nga ak combat moom ñoom xam nga Modou Anta. ñoom ñoom nga tey léegi liggéey la boo xam ne bi kenn ku nekk mën nga ci gis sa bopp. kon yaakaar naa war nañ ko mën a yaatal. ba mu yaatu ba xam ne ku ne gis sa bopp. te kenn ku nekk di nga ci am la nga ci war a am. waaw. man daal noonu laa gisee daal. Mhm. yéen daal jot na nag ngeen ànd nekk benn. jërëjëf Ndiaye jërëjëf. Mhm. Euh, mbokk yi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ne moo dul tàqali ko. Mhm. ba léegi incha allah ci beneen xew-xewu làmb jërë ngeen jëf.